naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk mbokk yi Equivox TV téléspectateurs yi maa ngi leen di nuy di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ku ne xam ne ñu ngi aljuma di bis bu sell sell sell sell moo tax nag ñu ngi leen di sàkko ay ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla defal ñu jàmm defal ko àddina bi waaye defal leen ko ñu tamit ñu ngi leen koy ñaanal li ñuy def nag tey ci àjjuma ji tombeek le 16 juillet ñu bàyyi ngeen dem déglu yëglekaay yi li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 16 juillet 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy dooreete ko ci xëtam mu njëkk yëglikaay bi nag tey xëtam mu njëkk moom la ca xëy fës maanaam lu yaatoo yaatu la ci wàllum làmb bokk na ci Balla gay numéro 2 bokk na ci Bombardier waaye Siteu ak Papa ñoo nga fa Tapha ak Boy Niang tamit ñoo nga fa ka nga xam ne nag moom moo xëy tey di wax ci diggante Balla gay 2 ak Bombardier moo di Mouhamed Ali Ndiaye moom nag export expert la ci wàllum sport de combat expert ba daal la mu xëy xamle wala que mu xëy di dànkaafa kenn la Bombardier day lay xamal ne ko Balla Gaye day day bu bëggee dégg-dégg Balla daal Mohamed Ali Ndiaye nee na cent quarante cent quarante kilos de muscle daal fi mu nekk nii moo nekk ci aw yaramam moo na Bombardier day bu defu leen na koo mu nekk nii na ne Balla moom maanaam motivation am boo xam ne bu leer naññ la moo tax Mohamed Ali Ndiaye moom mu ngay dànkaafu Bombardier nee na ko boo bëggee dégg-dégg moom say sens ci bii combat moom du bari parce que nag li am ba des mooy mooy Balla Gaye numéro 2 fi mu nekk nii daal maanaam dóor la nga daanu moom mbooye boo nga di ko te itam nee ko yow Bombardier Mohamed mooy wax nee na ko su arbitre soufflé moom ak foo mën ne ci la jëm si te fu mu la fekk bu keroogee bu dalee sa kaw da nga xam ne 140 kilos de muscle dal na ci sa kaw te bu dalee ci sa kaw su keroogee moom leneen la wax ba mu des ab jël Mohamed Ali Ndiaye moo xëy di wax loolu mel ni ki nag semaine boo xam ne nii daal làmb ji nar na koo jax ndax Balla Gaye numéro 2 Bombardier ñu na déet ne waay c'était ak Papa Sow tamit nekk combat boo xam ne ni le premier août lay am Pape Abdou Fall jaar fa mu nekk bés boo xam ne tamit maanaam combat la boo xam ne fi mu nekk ni coow laa nga ca ne gadd ku ne naan fii la ka ca des ne ko du fii fële la mel ni ki tam loola day am ñu jóge ca demati le 8 août tafaatin ak booy ñan ñëwati Pape Thialis Faye jaarati fa foofu tamit mel ni ki combat jànq la boo xam ne daal moom tamit maanaam bu nar a metti lay doon muy diggante tafaatin ak Boy Niang numéro 2 ki nga xam ne nii fi mu nekk nii moom maanaam heure am ne na sone na ngir nag maanaam moo jéem a defarwaat moom moo di Gambien ku ne xam na ne ki dem bu yàgguloo Njaay dafa daanu ca Mbuur moo tax nag fi mu nekk nii daal heure ba daa mel ni jotaat na ngir na Gambien xawaat defaraat boppam am na nag ab combat yëglikaay ba xëy ñëw dina ko wax ki nga xam ne nii moom fi mu nekk nii defaru na ba nakk ca yoon wa di dem moom moo di caat bu booy bambara caat daal ginnaaw ba mu jógee ca ka nga xam ne moo di armée bërki dem mu daan mut ja yëglikaay bi ne na day caata ngay dox de wutali fa nga xam ne moo di ca ñoom Sa Thiès moo tax nag sunu làmb ne na caat mii daal fi mu nekk nii bu bëggee dégg dëgg moom gars yi bu leen neexee ak bu leen naqaree nañ ko bàyyi xel ndax nag caata ngi dox di ñëw te itam ci seen kaw la jëm muy ñoom Sa Thiès ak ñoom Moussa Ndoye ñoom Malick Niang ak ña mel ni ki noom nañu bàyyi caat xel bu baax a baax sunu làmb nag moo xëy tey indi boobu jàngat du sama ay wax leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne xëy na tey ci yëglikaay bi di sunu làmb fa wax mooy Assane Ndiaye njiital Bawol production ginnaaw samedi jëlee nu génn ba mu jógee Thiès Assane nag dig na waa Thiès combat bu mag boo xam ne daal affiche bu rëy la boo xam ne nee leen yéen waa Thiès xaar leen ma ndax affiche bu mag moom dinaa leen ko indil lu yàggul dara dara dara Assane Ndiaye moo xëy wax lu mel ne ki noonu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne lii nag moom moo di ci record record moom ka fa xëy fës moo di bombardier yëglikaay bi nag moo xëy ne ko bombardier ah na nga teey de la daloon ka nga xam ne moom moo di Tapha Gueye dal Tyson dal Yékini moytul mu dal la maanaam gin ci làmb ak ay defet yëglikaay bi daal loolu la mel ni loo xam ne la moom lay dankaafoo dànkaafoo bombardier leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom record muy ka nga xam ne moo di Modou Lo ak Papa Sow xëy wan ñoom ñaar ca jàmmaratu seen académie ñuy entraîné di daw yëglikaay bi soo bëggee boo bëggee dégg dëgg égré papa sow ba fi mu nekk ni daa mel ni nag noyé na la nga xam ne moo di Rock Énergie ndax nag Modou Lo xam ne ne nii buñ ne Rock Énergie ci moom la ñëpp di xalaat tey Modou fi mu nekk ni mook papa sow ñoom ñooy bokk di entraîné nag dafa nañ entraîné moom mooy jàpp jàmbaar wrestling academy moo tax yëglikaay bi xëy sam pub laaj ne na mbaa jàmbaar wrestling academy décret bu beesu papa sow bi du noyé Rock nga xam ne moom la Modou Lo dal jiite leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci muy ca Jurbel lay amee buñ Tabaski bu bët set maanaam yëglikaay bi bëre na diggante ga nga xam ne moo di Cheikh Niang ak Bonis combat ba nag lendemain tabaski lay am fa nga xam ne nii moom moo di fa nga xam ne moom moo di ca njaareem lit simple ba tamit ci samedi ji jii nu jëm yëglikaay bi nee na boo bëggee dégg-dégg jag sa na fa nga xam ne moo di ca fa nga xam ne moo di pour un million waaye beneen événement boo xam ne tamit day am maanaam tabaski ba pare fa nga xam ne moo ca ñooro ña koy amal nag ñoom ñoo di waa Biba production maanaam boo bëggee dégg dëgg lamb ju rëy rëy rëy la ñuy tëgg fa nga xam ne moo di ca ñooro lañ ca fas yéene def nag mooy delloo njukkal président Macky Sall ñoom daal loola la ñu wax maanaam ña ko jiite nag wala ko ko jiite moom mooy Habib Seck ak bu ànd ak waa Biba production kañ cay delloo njukkal nag duppee ko drapeau ba moom moo di Moustapha Biteye di ab xale boo xam ne mu nga dëkk ca Nioro jiite société ba ñuy wax Petronas mel ni ki doon bu bëggee dégg dëgg daal maanaam kon bu nu tëbaskee ba mu am ñeenti fan fa nga xam ne moo di ca Nioro maanaam bu ñu tëbaskee ba pare samedi ja cay tegu rek ku dem Nioro moom da nga gis lamb joo xam ne ju rëy rëy lay doon drapeau Moustapha directeur général Petronas ña ko def ñoom ñoo di waa baax production mel ni kon daal làmb ji fi mu nekk nii moom sàjj def na ko bu baax a baax te itam nar naa nag gën a sàjj jërë ngeen jëf kon dégg ngeen ko noonu la demee yëglikaay yi loolu lañ indi tey fi ko tëjee nag defe naa ne ku ne xam na ne loolu mooy drapeau Moustapha bi tey di benn jeune bu nga xam ne mu nga dëkk fa nga xam ne moom moo di ca région de Kaolack département de Nioro di doomu Nioro moom Moustapha Biteye mi ngeen xam ñu tuddee ko làmb ña ko def nag ñoom ñoo di waa Biba production suñ ko waxee nag ay jeunes lañ yoo xam ne ñoom tamit ca Nioro lañ dëkk di xool développement ñooro ba ñu demee nag toog waxtaan ñu ne mbay ci sa wewu tànk dañoo am làmb buñ tëbëskee ba samedi ba ca njëg la ñu am làmb ñu ne bés boobu du làmb kese day ànd ak maanaam 72 heures lay doon a ah, waaw yoo xam ne ni ay manifestation lay doon ak ay yëngu-yëngu mais nag làmb lañ koy tëjee ñu ne tëj ga nag wala bés boobu la muy rëy rëy ñoom ñu ne Moustapha Biteye lañ ko delloo Moustapha Biteye di xale bu ndaw dëkk foofu bëgg a nekk maire Nioro yaa ngi dégg te Baldé démb man toog naa ak Moustapha bi tey ak waa Biba production mais muy koo xam ne comme li olof di wax gis nga balde boo ne damaa bëgg nangam te nangam loolu jarul la nga def ci dara wala nga naan fekk awma loolu duma ci def dara pour man bëgg a des na Moustapha bi tey démb maanaam génne na lu mat 12 million fukki millions ak ñaar laa la wax de jënd ko ay xar soble ak ay pomme de terre xool néegi doole yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci département de Nioro yépp ku mu jox la ko te la ma gën a neex ci wax ji nee na joxin gi wala nga ko doon waxal joxin gi mooy du loo xam ne bëccëg lañ koy def ñëpp ci teg ba dañuy bàyyi ba guddi ñu yor la ndànk ñëw dugalal la ko yow mi ko mérito nag la wax parce du ñu fekk benn balde boo xam ne seen kër fukki xar dee na fa ñu di ko joxam xar loolu yàq la mais am na koo xam ne am na problème mu tabaski te xam nga ne mu ngi ci dëkk bi nga jox ko kon loolu moo tax waa Biba production fi ñu teg seen loxo juumuñu Moustapha bi tey ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a yokk di ñaanal waa Biba production tamit wax mention spéciale Habib xam ne moom moo ne ci bi mais waa Petronas yépp tamit daal yàlla na a yokk bu baax a baax kon loolu moom tey dañ ko doon ubbee bu ñu fa jógee na dañuy dem directement suñu làmb suñu làmb tey xëtam mu njëkk lam ca xëy fesal maanaam mois de juillet mois semaine ko làmb boo xam ne dina metti trop trop trop waaye lu jiitu loolu Mouhamed Ali Ndiaye ah borom sa buspa mu koy nuyu di ko ziar nee na daal Balla ak Bombardier moom la xamle ne Balla mu ngi yore cent quarante kilo de muscle nee na kon Bombardier moom li muy wax ni yépp di dem aller retour ak ñëw moo la gën a xam kuy Balla Mohamed Ali Ndiaye ko xam nga Balla yaa gën a xam Balla te Mohamed nee na ko baat bi suuf lii bul xaar di sonal sa bopp Balla sa kaw la jëm te fu mu la fekk bu dal sa kaw doo ko net li loolu nag waxi Mohamed Ali la moom nag expert la ci wàllum sport de combat parce que ku ne xam na ne ci wàllum karaté yu mel noonu nekk na ci champion bu mag a mag a mag àddina bi xam ko waaye ah, dégg xëy na nag moom tiimoon na Balla di ko tàggat. ba tax mu waxee noonu ndax olof na la mu saf ko ko macca ko xam moom mi tiim problème entraîné ko wala mu xam ca la muy liggéey dara su waxee noonu ko la muy wax am na fu mu ko teg waaye ki mu ko seqal itam est-ce que dafa tëddoon di nelaw ba tax buñ dalee ci kaw mbir ma jeex loolu fa la question ba ne moo tax daal xam naa ne ah doy dawaar Balla Bombardier daal beneen affaire la yàlla nañ koy fekkete tal ko rek di ñaanal encore une suñ suñu papa Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla dimbali mu réussir le 31 juillet boobu parce que lu tax ñu di ko wax mooy suñu papa la te itam kilifa la te itam yàlla def na ko ni mu mel te nit nag bu ko yàlla joxee cër danga kay nangul kon donte Equivox su newut ca làmb ja wala duggut ca làmb ja mais du tere ñun dañ koy ñaanal mu réussir bésam boobu loolu moom duñ ci dañ di ko wax parce que nit ki àddina solo si bu bëree itam bëri waay yépp mooy ñu yenente jàmm rek jëflante ko di nuyu doomam makkan nga xam ne su ma waay la bu mu ci jógee damay ñëw ci li nga xam ne nii tamit buñ jógee foofu parce que combat yi day tegloo dañuy am benn semaine boo xam ne day tar ndax la premier août hmm, dimanche lii itam dama bëgg bu leen ko fàtte de jàpp leen ko date bi combat bu doy waar ngeen di am Siteu Papa Sow loolu lambu jànq la lambu ju masta am joo xam ne taxawoon na daaw ñu waroon ko bari moo de avril daaw ba avril ba passé ba dellusiwaat kon combat bi def na un a de plus yaa ngi dégg Papa Abdou Fall andi ko ak waa Pof production moom tamit ñuy rafetlu taxawaayam Pape Abdou Fall parce que am na ay moment yoo xam ne lamb am na nu mu demewoon Pape Abdou Fall nekk ci di ci sonn di tëgg ay combat yu mag di tëgg ay yu mag ba yàlla defaat ñu gisaat bu parce que boobu lig ni ko laay amoon na ay quelques jafe ñu koy nuyu di ko ziar borom mbuur géej suñu papa Gaston retiré woon na Pape Abdou nekk fe ak ay promoteurs yi mu ko seqaloon ñoom Dieye Sène ak ñoom Assane Ndiaye ak ñoom Fallo ñoom Kanji xam nga di tëgg ay les affiche yu mag a mag yi ndax ku ne yaa ngi fàttaliku Lac de Guiers ak ki nga xam ne moom moo di Modou Lo lam jooju gis nga coow la mu amoon ak yeneen affiche ah Garga ak ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang wala boog guy gi ak Boy Niang lépp Pape Abdou Fall ak yeneen yoo xam ne buñ koy lim diñu fi jóg tey nag moom mu ñëwaat le premier août indi affiche su Papa Sow ak Siteu combat bi teel a bëri coow muy làmb joo xam ne dimanche lay tombeel bu ko kenn jaawale wax naa leen ko Siteu Papa Sow wallaay bu ñu ca di ngeen xam ne làmb dëgg ngeen di am ke ndax tarkindaa yee ma gis nañuy pare ak waa parcelle PA 1 ba 26 nañuy pare ah dana doy waar ñu jóge ca semaine ba cay topp ñi nga xam ne nii kay ñëw moom moo di Fallou Ndiaye la set dafa ki nga xam ne moom mooy Ada Fass samedi set boobu tamit ab date la parce que bis la boo xam ne ay espoir la yoo xam ne espoir yu ñëwul ay magi làmb lañ ndax mën nga leen a ëpp mën nga leen a jiitu ci làmb ëpp leen kase yaa ngi dégg te doo leen ëpp mbooloo mooy drainer muy Tapha Mbeur di Ada Fass ndax Tapha Mbeur dafa censé écrit léegi ku ne xam na ne mu nga ca ñoom Modou loo Ada Fass itam nekk fas bennoo waa Fass yaakaar ko mu resté Fass Fallou Ndiaye indi ko le 7 samedi ba 7 dimanche le 8 papa ki nga xam ne nii moom moo di euh, Thialis ñëw ak booy Niang Tapha Tine combat bu boo xam ne ñëpp dañ noonu est-ce que dina am le 8 lay am dimanche mu nekk bés boo xam ne tamit combat jànq la kon lii yëpp war a am Balde muy làmb yoo xam ne dana neex dana yëngu caat bu booy bambara nañ ko bàyyi xel yëgli kaay baa ko wax du samay wax dana mu ngi dox di ñëw jëm ci kaw gars de ndax ku ne gas ne na muy marché di dem di bi mu daanee euh, armée ñun di waaye bëri ki dem gis nga bëri bu rëy bu mu bëree mut ja ca arène nationale daan ko jël bu rëy ba mu ko daan danañ kon ñoom Sa Thiès ñoom Malick Niang ak Moussa Ndoye ak ñi mel ni ki noonu nañu bàyyi caat bu booy bambara xel te effectivement ku jar a bàyyi xel la ndax olof na ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te da cee bokk te mu ngi ñëw leneen li ñuy des wala beneen yëglikaay bi ñu si Bombardier ah yëglikaay bi ne day ah syndrome ba ba maanaam la daloon Tapha Guèye dal Tyson dal ni maanaam ba ñuy génn làmb dañoo xalaatoon dañuy génn ak ay ndam waaye ay defet lañ mujjee génnee nee nañ kon Bombardier na def attention parce que nag ku ne xam ne làmbam bu mujj da koo ñàkk mu Eumeu Sène te mu ngi jëmaat ci revanche xam ñu nag nu muy demee dañuy yónnee yàgg yàlla nañ ko fekkee te tal ko euh, ndax jàmbaar wrestling académie du noyé rek énergie parce que li tax yëglikaay bi xëy tey samp boobu laaj ki laaj loolu nag moom mooy moom mooy Assane Walu Gaye li tax mu laaj loolu mooy gis na na ne léegi foofu lay entraîné lu ëpp fa lañ koy fekk ah, na bañ a nekk lu koy noyé wala pour cent ñoom ñëpp ñu mbooloo day entraîné terewul ku ne am nga écrit am nga président écrit la war a la nga war def ci sa écrit bu jotee waa Rock Énergie dañ koy def rek Rock Énergie ku ne xam ne ne Khadim Gadiaga mooy seen président Jàmbaar Wrestling Academy père ba mooy président ba dóor dóoraat am na président ah euh, sàkku xam-xam am na président loolu lépp ci biir parcelle lan ak yeneen écrits ya nga xam ne ñu ngi ci biir parcelle waaye xëy na des fois ñoom ñëpp ñu àndandoo liggéey dina leen may doole parce que olof ne na mbooloo mooy doole man côté boobu laa ciy gisee waaye nag euh, loolu daal parce que ñu bokkum gox du ñu bëree moom pour man suñu àndee liggéey tamit yàqul daal terewul ku ne am nga sa am nga sa euh, sa écrit am nga ñu la formé ndax ku ne xam na ne Modou Lo ku ko xam xam kook Pape mbay xam kook Père Ndiouga Dia xam kook ñeneen ak ñeneen ñun ñëpp ñoom ñooy ñi nga xam ne ci ay loxoom lañ ko formé ba tey mu nekk roi des arènes nekk un grand champion yaa ngi dégg mu nekk làmb joo xam ne wala komba boo xam ne ñu ngi ci jëmati di muy Papa Sow Siteu man na ma leen ko waxoon rek le premier août dina mel ni ba nguur jaay mbaamate na nopp ba du dem waaye Balde maa lay ziar di ziar ñi ñu doon suivre ci Equivox TV yépp di leen ñaanal jàmm di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñu doon bàyyi xel di di leen balu àq di ñaan yàlla tabaski gi ñu jëm yàlla nañ ci dugg ak bisimilah rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin parce que tamit bon li tax loolu mooy bés la boo xam ne ah euh, ci jullit yi bu ko mën nangu ko war a def waaye li ñu ciy wax rek mooy bu kenn def lu nga xam ne mënoo ko tabaski di passé nga am problème ci sama bopp laa koy commencé lu ci waaye di def rek seet ko ba mu leer na li soo ko defee jafe-jafe du la ci fekk nga def ko ndax yàlla moom tegu dab jaamam loo xam ne nii maanaam lu koy indil fitna la kon nañu xam ne rek lu ñu war a def la muy digalal sunu borom ku ko mën nga def képp koo xam ne tamit gis nga koo mën a jàppale comme noonu ko Moustapha bi tey defee nga defe ko noonu jël xaaj bu bari jënd ko ay xar ak oñog yooyu ak ay pomme de terre joxe ko loolu am na solo Aziz Ndiaye tamit gis nañ lu mel noonu mu jënd ay xar yu bari te yaakaar nañ da koy joxe yooyu tamit dafa am solo te yooyu dafa jar di wax mu koy nuyu moom Aziz Ndiaye Aziz Ale di nuyu rakkam bàyyi Ndiaye di nuyu waa Zador yépp ak waa Alburax mais di nuyu tamit Jimson production nga xam ne ku ko xam-xam ko Aziz Ndiaye ak Ndiaye di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi suivre Equivox TV di waxaat gars yi rek ne leen ah lama leen waxoon laa leen di waxaat de Zador moom ci tabaski gi ñëw na na ko ñëpp jëndi dugal ko ci wàññi tabaski gi neex balde yàlla na sa jàmm yàgg taal bi Serigne Touba bi borom sali porti daal yaa neexub dëkk muy nuyu waa Saly yëpp mais di nuyu may sa Ndiaye bi nga xam ne moom mooy premier vice président wu CNC de lutte fii Sénégal dëkk Mbour maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit Omar mbay ñu naan ko man su job numéro 2 borom boulangerie làmp Fall dëkk ca mbuur rond-point Ndaje du xam nga rond-point Ndaje ca Mbour maa ngi koy nuyu borom Mbour mu baax mi di nuyu soxnaam di ñaanal waa Mbour géej yëpp ndam jàmm di leen ñaanal jàmm boog di moins parce que man nga ne sax ndam gaay ne victoire non non que li tax mooy Mbour dafa bëri ay soppe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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk